المصطفى يا برد أحراري يا أكرم الكرم يا أرحم الروح يا ألطف اللطف السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وديك لولو كم نمير أمنا لو أم الحاج مام أس جي موي أمل بس بمك ci ndigalu Serigne Babacar Sy Mansour xalifa général de Tidiane muy bisu lan bis bi mu jagleel maamam soppeem Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu mi ni ko kañ koy amal mu ni dimanche yemoog fukki fan ci weeru mars insha allahu taala fan lañ koy amalee ñu ni Géejawaay mu tolloo quinzième édition mbokk yi bis baa ngi noonu bu ko defee nag ñu daal di koy yaatal ci mbokk yoo xamante ni kenn ku nekk bëgg nañu mu wax ñu bis ba nan la war a demee bu ko defee mbokk yi bis baa ngi noonu ñu jébbal kàddu gi ki nga xam ni mooy alxaaji Birame Seck di oustaz bu mag ba jàmbaari ma Ahmed Tidiane ba jàmbaari Cheikh alxaaji Malick bi mu wax ñu bis ba oustaz Birame nan la war a demee ci wàllu waxtaan ak yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkee ci bis bu mag bi nga xam ne bis bi nag ñu war cee waxtaane lu am solo ndax bis boo xam ni Serigne Babacar Sy lañ ko tudd ñu war cee waxtaane tarixa bi te bis boobu wàcc na te bis boobu màgg na te bis boobu rëy na te bis boobu rafet na ndax Serigne Babacar Sy ku ne xam na ni léppam da ko defoon Cheikh waaye li ci ëpp ci Cheikh la ko woon ndax dégg ngeen li mu wax ci xajul xataan yi addi ankal ma jaar ma bi lépp yoo adraa yi nga am ko jaar ala arixa nafsan takal taxulu min biladik axbaara wa samman masaabiha te kooku mooy Cheikh nga xam ni mooy xaatimul wilaayati nga xam ni ba mu ñëwee ba tey mooy dëgg bépp wàllu te ba mu xamee nubuwaa ba mu xamee wilaaya du tey ndax yonent bi salallaahu alayhi wa sallam bi mu taxee wax ni man damaa xam sama nubuwa te boobu aadama mu ngi ci diggante ban ba ak suuf sa ak ndox ma man ma xam sama wilaaya diggante boobu aadama bay na maa ngi tiim kon kooku nag moom la ñu war a waxtaanee bis bu mag bii la bis mars incha allah. bis baa ngi noonu. ñu ngi leen ci woo yéen mbokk taalibe yëpp di leen ziare bu baax di woo waa di woo borom xam-xam ñu nekk Géejawaay yëpp di leen wax ñu teel a ñëw incha allah ñu déglu waxtaan bi ndax mën nañ cee jàng te mën nañ cee jariñu wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa mi ngi noonu mbokk yi tabaarakallah yal na yàlla barkeel oustaz Birane ci kàddu yi am solo yooyu nga wax bu ko defee mbokk yi ba tey des na ku wal bëgg a jox oustaz Mbaye Mbawo jàmbaari Cheikh Al Hadj Malick ci moom it mu wax ni nii la nit ñi war a ñëwee ci bis ba incha allah. aouzu billahi min asaytaani rajim wasalaatu wasalaamu ala man ursila rahmatin lil alamin mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen ziyaara di leen baal di leen baal di ñaan yàlla yàlla yàlla bëri baal ah kaddu yi woo góorlu kilifa diine yi kilifa aada yi pour ñu daal di teel ñu teel a ñëw fa tabaarakallaahu ñu xam ne jotaay boobu lu tax ñu daal fee ñëw bu ko defee ñu ngi soxla jigéen ñi nga xam ne dëgg yàlla bis bu tedd bis bu màgg moom la ñu taxawal fa tabaarakallaahu ñu si woo ñëpp di si woo comme ni ko Birame waxee rek waa ASEP képp kuy tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ustaas yi nga xam ne ñoo nekk si géejawaay ñu ngi seen i teewaay yi ñëpp ñu teel a ñëw yal na yàlla faj noonu alxaaji Mbay Baaxum ca mbaaru Cheikh alxaaji bi yal na defal la jàmm kontaan nañu ci kàddu yu rafet yooyu nga wax bu ko defee nag ñu jox ki nga xam ne nag mooy borom bis bi wolof ko moo wax ni ah tànk bu nekk am na jàppante lu jox borom nag mu wax ci bis ba nan la war a demee muy alxaaji mam as ah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf euh, mbokk yi kàddu yi am na solo maam Ndiaye jërëjëf sëñ Bay Baara jërëjëf oustaz Ba jërëjëf fii ñu jaar rek fa laay jaar bis baa ngoog di santaat yàlla bu baax a baax di julli ci yonentam te dafa sallallahu alayhi wa sallam santaat suñu ñaari yaay yi nga xam ne tabarkalla ñoo ñu ba ak ñu euh, yàlla jot na mu waaxu bu baax jot na mu gën mu képp koo xam ne daan nga ci àndante ñun ngi la ciy woo mag ndaw góor kenn ndax ñëpp xam nañu suñu jëmm ji bu dee ñun rek la dara du waaye at mu jot mu ñu koy waaj tàmbali ba ba fin ñu ne doomu aadama yi ñoo koy bokk kon fan daan jaar ngeen jaar fan dëgg yàlla ba daan am yàlla jox ñu ko ak bis bi nag ña ngi ciy woo ñëpp bawuñu kenn képp ku dégg kàddu yi rek nga xam ne mooy sa invitation d'honneur ndax it yàlla rek moo mën a matale bu dee yéene ak kàttan gi am na yéene egg fépp buñ ko ñu ne ñu ne ko asalaamaaleykum waaye ñëpp xam ne loolu bu ñu ko bëggee dana métti rawatina mbokki bitim réew muutani la ñuy commencé suñu mbokki muutani bawuñu kenn ñu ngi leen woo bu a baax mbokki ndar sama waa kër maam waa Ngom Paal Kees bawuñu kenn euh, Ndakaaru bu ñu tuddee Jéemee Seydi Hadji Malick rek euh, daayir yëpp dugaale bu ñu nee secteur kër Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne euh, daaraan bu koy woy Mouhamadou Diagne ca boppay la bokk bu ñu bàyyi kenn suñu mbokk Moustapha Diagne leen ci woo mbokk yi ci réew France Canada Espagne États-Unis bawuñu kenn képp ku dégg sunu kàggal xamal ni amoon na yéene jël bi avion fekk la ba fa ma toog yégal bi boo defee nag ah, na ni mu nekk bu mu mu nekk nekk lu baax mën a saltaani organisateurs yi ñu ngi bu baax baax ci ndigalu xambali mi nga xam ne tubaarkàlla moo fi daan teew jàllale lii lii boppam boo defee incha allah nañu teel ñëw toppatoo lépp lépp luy jagal bis ba rek am nañ ci digal ñu góorgóorlu ci bu baax a baax boo defee kon kàddu yooyu rek mooy suñuy kàddu xanaa kay di santaat bu baax a baax Cherif Dabakh TV bi ñuy jàkkaarloo moom ndax it ku santu rek xarab ku gërëmu rek xarab at mu jot ñu ne ñoom ñoo koy ànd ci wàllu direct ci wàllu annonce ci wàllu côté bi yëpp kon ña ngi koy commencé ca kilifa bu tedd ga Serigne Ibrahima Aïdara Tidiane yàlla yàlla gën a dëgëral ay yaxam yokk yenn Refane yéen a ji am ci xadar Seydi Hadji Malick ak ak bépp njabootu kilifa diine yàlla ko yàlla yombal waaye suñu amal bi nga xam ne tubaarkàlla moom la ñu de mu am ndigal ci li muy def ñu séq koog moom moom it ñu koy ñaan bu baax baax lépp lu yëf yi yàlla dem ba def ko tere lépp lu jumtukaay yàlla jox leen asalaamaaleykum wa rahmatulah. mbokk yi mi ngi noonu alxaaji maam as Dieye kàddu yi rafet la rawatina fa nga ko daanalee mooy kan gërëm ah tabaarakallah yal na yàlla barkeel sàmm leen bi jaay rasul waaye na ku ko tudd daal xaaji barke yal fanaan barke Cheikh Al Hadj Malick taala anhu mbokk yi bis baa ngoog kañ la dimanche taala ci weeru mars di weeru Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu ku woote alxaaji maam as Dieye jàmbaaru Cheikh Al Hadj Malick ba waaye jàmbaaru Cheikh Sidi Babacar Sy mi bàyyi ñëpp jàpp ku dul moom fa tabaarakallahu buñ ca yàlla yóbboo samedi ci la liggéey bay départ daanu tàmbali baas ba ànd koog ñañ ko war a àndal dana sotti bu nu xëyee dimanche incha allah bu nu xëyee jàng alquranul karim ñaanal ko réew mi ñaanal ko mbokk yi bokkoon xadara yi ñaanal ko ñëpp fa tabaarakallahu mi di lu mu teg daanu def yëfi njóobeen incha allahu taala bu nu añee ba noppi nag daal di waaj ñu ñëpp daje nag xaar kan jàmbaar ja soppe Cheikh Mouhamadou Bassir Taha Mountaga Cheikh Al Hadj Omar Al Foutiyou mu Cheikh Ibrahima Haydara At Tijaani ànd koog ñi mu ko war a àndal ak kan doomam ju baax ja soppeem xaritam soxna Asiya mi nga xamante ni nii maamam ja Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha moom la njëkk a teg bët ci sëtam jàmbaar ji nga xamante ni nii kenn merewu ndax liggéeyu maamam liggéey bi mu taxaw di ko liggéey maam Cheikh Al Hadj Malick ànd koog rakkam Serigne Babacar Sy bu sunu maam As fa tabaarakallaahu ànd koo mag ñu baax ñi waaye mbokk yi nag dana neex de kañ buñ demee ba waxtu takkusaan buñ julli ba noppi daje ci tànk bi ànd koog suñu soppe suñu xarit borom baatu wurus ba macha allah yal na ko yàlla barkeel muy Mouhamadou Ndiaye Jamil jàmbaar ja nga xam ne bu àddoo xel yëpp dem ci alxaaji Mor Samb jàmbaar ja nga xam ne bu àddoo xel yëpp dem ci Seex Seydi Mouhamadou Moustapha ànd ak yéen bëgg leen teg ci Seydina Mouhamad ba ci Seex Seydi Aboubacar si nga xam ne mooy borom ba bu noppee nag ñu jël kàddu ko teg di loxo oustaz Dame Diol moom moo ne waxal lan mooy tariqa bi ak ya ca aju jàmbaar ja moom it duñu ko fàtte yal na defal leen jàpp mbokk yi noo ngi woo Mauritanie noo ngi woo Paal noo ngi woo Géejawaay bàyyiwuñu kenn ñoo ngi woo ñëpp ku lim doo mais da nga dul matal alhaaji maam as jéey jàmbaari Serigne Babacar Sy moo woote kañ dimanche 10 mars fan tournal Serigne Assane ca wetu arrêt 30 incha allahu taala mbokk yi bis baa ngoog wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala إذا بدناها ما دعيت غفورا كل